baax a baax. waaw ñu ngi leen di ñu ngi euh, leen di siyaar baax a baax a baax ñu ngi di nuyu yéen ñëpp ah di kontaan seen déplacement aussi ah jaajëf. ayca mën a jàpp rek ci li nga xamante ne moom nga jot dégg ci biir salle bi waaye aussi délibération bi nga xamante ne bu ñu jugee pause lañ ko war a joxe lan ngay xaar ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy àttekat yi. waa yu am xel mu daal rek. yaakaar ni xëy na li ci des a bareetul euh, laaj ko question di mu ngi tontu na ko donc. ci des rek ñuy rafet njort rek xaar yàlla ñaan aussi mu génne ko ñu libéré ko vite fait rek war defee mu continuer liggéeyam quoi. ayca suñu teewloo li nga xamante ne moom mooy li ñu koy toppee bokk na ci ñàkk permis bi mu am di dawal oto bu amul këyit ak yooyu lu ñuy faral di gis ci artistes yi lan ngeen ko mën a jàngee ci loolu. noonu la tax ñu ñu bëri jàng ci rek xam nga euh, loi moom loi la quoi yoon yoon la boo nekkee ci réew xëy na boo. yu mel nii day tax nga gën a jàng rek xaw a comprendre aussi le que euh, nit il faut nga légal à cent pour cent pour nga mën a dawal loolu kese la et je pense que aussi njuumte la mënul ñàkk des fois ci doomu aadama mu juum dara terewul aussi mu nangu ko après lu yàlla def rek ñu xam ni que def na ko mais quand même ñu ngi ñaan rek vraiment daal mu génn parce que pour ne pas dire fii du palaasam parce que am na yeneen gor yu fi nekk mais rek dañuy wax ne que soxla nañ ko moom mu génn vraiment ak képp ku mu fi nekkandoo aussi. parce que bu ñu taxawee tuuti ci li nga xam ne moom mooy Sidi Diop période yi ñu koy jàpp sax fekk na xam ne moom la tourné woon ko génnee donc mun nañu wax ne liggéeyam presque lépp dafa taxaw. waaw c'est vrai liggéeyam taxaw ñun sax suñu liggéey taxaw na parce que euh, mënuñu jàpp Sidi ñun tamit ñu nekk aussi ci nekkaat si même rythme bi ñu nekkoon ndax suñu xarit la suñu rakk la c'est très normal que liggéey pare Euh, ñu taxaw def ko pose xaar tuuti soutenir ba mu génn parce que euh, ak moment bi du ñu arrangé trop du suñu xool sax du neex quoi pour que ñu tamit ñu engagé ay programme yi mel noonu quoi